ndongali ana ahmadou bamba cheikh ibra gassuna do man damay bëgg a waarlooy wax ak man mu ne souf mën neel sa sang ba da yara dal mu lu yara dal mu lu mu am mu dem may pakup jamm bi nga xane bu buma ma mom ahmadou bamba moom bu lum lu mu amati do dund cheikh ibra fall yanu say wa danel ci kanam seigne touba nako ko souf da wax ak man neena day amna pak bu nefe bop neena boko boo neena lo amati dana tok seigne touba nako nañ dem and ak cheikh ibra fall bam daaru salaam ci souf ci fóon nako hakka sa béréb baangi ni sëñ Tuubaa daal di sanc Daaru Salaam Cheikh Moustapha feeñ fa Cheikh Ahmadul Fadal feeñ fa waxuma dund waaye dañoo barkeel fii armée li Daaru Salaam yi nekk fi la néeg Cheikh Ibra Fall nekkoon bu ma sax tëdd day jëmale tànk yi ci penk bi rek jëmale bopp bi nii naa doom du noonu ah doom du noonu benn bi sëñ Tuubaa taxaw fa ci buntu néeg bi daal na buntu bi Ibra Fall bii moo Kaaba ga ñoo ne makk jàkkaarloo mag ñi tàmbali tërbiya Daaru Salaam seex Ibra fa la jëkk amee ngërëm fa la ko sëñ Tuubaa wooyee bis bi ñu mën ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la Cheikh Ibra Fall demal Ndar del dox goudi tay noppalu ba cëkk cheikh ibrahim di wëndeelu aman ah, yalla lu def seigne bamba genné na ma néna bax gi ak sama bon gi di ming mom cheikh ibrahim fall ad desasin lako def muy daru salam lako ko sañ wasasin di 1306 euh, seigne touba sanc dëkk bu ñu wax toubal mahrusa mag ñi ñew seigne touba bi muy sanc touba fekk na saabixuun sabiqun ur bu jekk ba maye won na ñen ca donga ye ya ko joxon mam cheikh anta bi mu sañcee Touba nag bi gu jëkk nga xam ne xablal xëy ba la yàggaay baag métti di ba foofee la amee woon di Touba sëñ Touba sañc dëkk bii di Touba ci weeru rajab di weeru Cheikh Mahamadul Fadal ba mu ko sañcee mag ñi ne fa nag mu séddale ko def koy daara noonu la ko defoon ñeenti daara ma Massamba Diop Sam Cheikh Ibrahima Fall euh, sëñ daam Abdourahman Lo Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ daaray tërbi yooyu noonu la séddali ko woon Touba féete woo ko sëñ Touba nekk fii jumaa ji nekk tey nga xam ne mbaarum ngeer a fi nekk dóor dóorub ngeer moo fi nekk ak mbaarum ngeer sëñ Touba daan nodd moo daan liqaam boobu fanweer ak juróom-ñeent la sëñ Touba moo daan jiite sikar boobu xasaa yi di ñuy jàng tàmbaleegul sëñ bee ko daan dëbbe sëñ Modou Mamoun ña nga ma wax sëñ Affe Baye ma ko wax fekkee woon na loolu nga xam ne sëñ bee jiite bu nodd jotee mu nodd bu liqaam jotee mu liqaam benn bis taxaw na foofu daan na leen jumaa ji gën a rëy ci sowu jant fii lay nekk booba sëñ Tuubaa tam mbaarum gerte la nekk daal ne leen ëllëg fi yàlla attee jaam ñi ak fii jërul sori dal daal na béréb a ngi nii boo xam ne nii day nga lu yàlla li ci nekk bis dana ñëw mu leer foofee la wooye woon sëñ Mbakke Yibra ke wax sëñ Mbakke Kajoor dalal ko fii mbaaru Matlabul Fawzayni mu nekk kër sëñ Tuubaa la woon fi la ko dalaloon sëñ Tuubaa defoon na fa ñetti néeg sëñ Mbakke Kajoor bi mu ñëwee mu jël benn néeg bi jox ko na ko bii dee ci jaamoo yàlla bii dee fi tëdd bii dee fi dalal gan ñi daal di ko koy jox dem nag fii daaray kaamil nekk daara seigne mën dumbe xabbaan la won fi ni denc seigne abdullah nek seigne sëñ mën dumbe la won seigne touba ñew nangu nek ba dekk fa fi lañ denc cheikh abdullah fe ñu daan siaré ci fawzeyni nekkon keur seigne touba cheikh mu nek fa mom ben bis na seigne touba genn wax seigne mbacke kadior nako sa borom neena nga wax lo bëgg ma defal lako lo bëgg ma sa borom ne lo bëgg ma defal lako mu nako lima lay ñaan ba ci jëk moy sa xol bi amna lu ci ne sa xel a ci genn réew mi booba sëñ da bëggon dem arabie saoudite wala mu dem gànnaar mu ne ko rikk waaye li nga ngoor ci ngëneel ak yiiw ak tiyaaba ak baax boo ko fecciwul ci réew mi wan nu ginnaaw mooy suñ toroxu àdduna ak alaxira sëñ Tuubaa na ko toog naa mu ne ko bul fàtte Cheikh ma Fall bul fàtte Cheikh Mandumbe Xabbaan daan na ko man nag li ma bëgg mooy saa yu sama ruu waat dee rek ma tabbi àjjana jaayanteeg Serigne Touba ca woow melo ak doxin woowu sëñ Touba di tërbiye mag ñi ci tërbiye gu yéeme di jàngal ñu war a jàng bay di bay ñu war a gor di gor ñu war a daaj di daaj ndox mu ñu naan di jafe lu ñu jëfandikoo jafe ba ci atum mille huit cent quatre-vingt-dix wala quatre-vingt-onze Cheikh Mouhamadou Lamine Baara feeñ sëñ Baara bi mu feeñee fii jumaa ji nekk fi la feeñee sëñ Tuubaa dajale mag ñëpp uur bu njëkk ba ne leen inna dayfa hada qad ataakum bi jamia matalibikum gan gii ngeen gis tey mu ñëw feeñ fi ëndaale na mbooleem li ngeen doon fàggu lépp di ko sakku àdduna ak alaaxira yàlla gërëm na leen gërëm naa leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm na leen mag ñi tàmbali nag ngërëm loolu du nos ñoom am na ci mag ñun dañoo jaayante wat am na ku ñuy wax sëñ Mor Diouf jëtti dane sëñ tuubaa man de duma dellu ci sowu jant lu dul bu ma fa tegee sama tànk ku fa teg sa tànk sa war a araamal na sawara mu ne ko loolu lu ñuy jaay la ñetti at la tër bi yëwwaat sëñ Tuubaa door koo woon ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na gërëm naa la li nga doon fàggu yàlla sama borom def na ko mag ñi tàmbali foofu ci Tuubaa di jaayante sëñ Tuubaa di leen yar di toxoo fii jumaa ji nekk di ñëw fii di daarul xuduus di dem daarul naar buy kër sëñ Chouaïbou di daaru Rahman di dem daarul di bàggante xam ngeen ne ba ca kooruk ay sës moom mu xëy bis dal di wax ne yàlla sama boroom dafa soxla sama ruug yi waaye defal na ma ruux sax ana kan moom may demal si njaboot bi foofee la soxna Aminta Lo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor soxna Aminta Lo muy wéyjuru Cheikh Mamadou Moustapha al Karim ak Cheikh Mamadou Lamine Baara daal di na ko mbakki man may dem xam ngeen ne ba mu duggee ci lobb bi di wut matt ndox suuf laal ko bi mu ñëwee ñu tëral ko ci wetu sëñ Touba fekk sëñ bi kàbbar di julli te sëñ Touba bu kàbbaree di julli du ko dagg mukk ci du Bamba bi sëñ bi sëlmal tasante nag mu génn àdduna li gën a yéeme mooy soxna Aminata loo fi mu tëdd génn àdduna Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nekk tu tànk raam jëm ci way jur bëgg a nàmp sëñ Touba gestu gis kii di doom ji raam jëm ci way jur bëgg a nàmp te way jur wi génn gi mu génn àdduna tey tëraayam bii bakkanam la jox sëñ Tuubaa fi la sëñ Tuubaa xaaloo ba dugal ci Cheikh Mahamadou Lamine nag ma masoon nga xam ne keroog wax nañu ne daanaka waxambaane fukki at ak juróom-ñett Cheikh Mahamadou Lamine Baara am na ko sëñ Baara moomu nag sañ Tuubaa di ko sëlëmal boppam di ko gàddul boppam sëñ Tuubaa wax ne nañ ma ko yóbbul fële ca guy taxee sëñ Tuubaa ko taxawul boppam moom soxna Aminata Lo mu bàyyi fii soxna Awa moo ko jël di ko nàmpal boole ko soxna Mareema Kunta xam ngeen ne sëñ Saaliwu Mbàkke nee na sëñ Baara sëñ Tuubaa ko daan fanaanoo di ko sëlmal di ko sëlëm la tax mu bàyyi ko nee na bu jëlee kanam gi rombale loxo bi ci xar kanam bi raay ko day gis mun mulkoog malakoot àjjana ak sawara malaaka yi dox lépp suñ borom da koy defal kas su mu bàyyi ko gan googu ëndaale ngërëmul yàlla loolu wuur bu njëkk boobu sëñ Tuubaa daal di wàcc atum euh, Euh, Jayshash wala ay euh, Bayshash Shuwaali Bayshash di 1312 ci jeexintal bi ndax Shuwaal ngay wax euh, mën a tabbi ci Muharram Bayshash jeex Jayshash tabbi ba muy dem nag Mbakke Bari yóbbaale mag ñi bàyyi Touba sëñ Mbakke Buso yóbbaale maam Thierno Birahim borom Daarul yi yóbbaale sëñ Ndaam Abdourahman Lo kii nay jàngale xam-xam ñi di jàngale alxuraan mag daaru mbakki bari googu bi gi li muy gàtt-gàtt yéeme na sëñ Tuubaa nag tàmbali di laxas di taxañ xam ngeen ne doon li wul bi mu daataan dem taalif nay téere bi mu daataan dem defar naw nit nit ñëwee na wet gu nekk bàyyi ci béréb ñëw ci sëñ Tuubaa keroog bi jenn jëmm ñëwee ca ña bokkoon ca daara ju jëkk ja ba sëñ Tuubaa ne kum njàng andi seetil keneen am na ko ñëw ci sëñ Tuubaa daal di jàng euh, alfayni bi euh, ibnu Malik bi daal di koy siir def ci ay jongenteem dikk woon ko sëñ tubaa na ko man de bi nga wootee damaa jàngi woon téere bii de saraawaat naa ko def ci samay tafasir ak yépp sëñ Tuubaa nañ ñokket bi mu waxee loolu rek sëñ bi dana bëri nee na bi sëñ Tuubaa ne ñokket woon ma ginnaaw rek sama bopp bi wenn araf nekkatu ci nee na keroog li ma fa jooy boo ko beqee dana matug bi ñu waar ndax ni ma dajee ci xam-xam ma noppi te xamatuma dara sëñ bi dana bëri rek yóbbaale lépp waaye nee na bi sëñ bi dellu si waatee bi mu ne asalaamaaleykum laa tàmbali yëgaat sama mémoire bi ni muy tàmbalee sarse waat ma tàmbalee xamaat li ma doon xam gaa yu baax yi tàmbali di jaayante nag sëñ Tuubaa di leen yar waaye xam ngeen ne 1895 bi sëñ bi demee ci géej gi mag ñi foofu lañ gën a sonne jëmmi Leclerc ordre la joxe woon bu kenn dëkk tuubaa kenn nit moo nekkoon Touba 1895 muy sëñ Modou Fall xonn sëñ Tuubaa ñi mu dëkkoo woon da leen seddale kenn ku mu dencoon ku ne ab leetar la jël def tëb téeméer jox maam Cerno Birahim na ko ku ne yóbbul ma ko fi béréb soxna Fatima du maam mi we juru sëñ Basiiru rek la waxoon nañ ko fi bàyyi daan na ndax dafa am lu mu àndal bu dee góor a nañ ko tuddee yenente bi ci turamu Muhammadul Bachir bu dee jigéen nañ ko tuddee soxna Khadija sëñ Tuubaa daal kon mooy xusuur yi xallat wal ahlu an yi tafaaraqat li maddahi lladi anhul madiyu qasir sama keur yep gent na sama njabot tagona mak ñom nga xam bi mi dem tagona ak njabot gi amatul keur mom seigne touba legi nak touba bi nak am luñ programé dal di wax ne mag ñi nañ tassare seen mbolo yi fekk seigne bi duy na lañ ben fess téméré rak am ci ño xam mom lañ dal nafila fila xolako melni Cheikh daru Assane jaay seigne touba kéro bi seigne daru ci mom ba ko ginaaw sëñ Tuubaa dana kii de kum topp sa ginnaaw yëfu sóoru la dox ndànk waru la daane la ko waaye di jiitoo ci yàlla nag jëf du ko maye coobare suñ borom képp lay mën a doon Cheikh Darou Assane Ndiaye téeméeri rakk la daan naafila sëñ ma Yaasin Umi Jeng téeméeri rakk la daan naafila sëñ Mbakke Buso Alaaji Malik Si moo wax ne doy na ci doy na ci aw lay ci nungul sëñ Tuubaa ci ne amul moroom mooy nanguwul sëñ Tuubaa amul morom nee na sëñ Mbàkke Buso demal jàng karamatu Cheikh Ahmadul Miski yi wala nga jàng Minanul Baaqil Qadiim wala nga jàpp baabu shahadat fii irwaa u nadim sëñ Mbàkke Buso sëñ Alaaji sëñ Mbàkke Buso doy na ci nungul sëñ Tuubaa te muftil bal dañ ko doon tuddee moom sëñ Mbàkke Buso te sëñ Mbàkke Buso nee na sëñ Tuubaa huwa al xaws wal miqyaas rabba qulubana waa jisaamanaa fal kullu saafin wa naibun sëñ Tuubaa dafa defar suñuy xol dafa suñuy jëmm ba ñu jag ba ko gis nu baax te ko nu may loolu mooy sëñ moom sëriñ Mbàkke Buso radiyallaahu taala anhu nga gis maam Moor Jaara boroom sàmm bokk ak sëñ Tuubaa soxna Jaara bokk ak moom sëñ Moor Anta Sali <clears throat> bi muy jébbalu ci sëñ Tuubaa sëñ bi dana ko pays suñ borom yi fu ma dem fekk naa fa sa jëf waaye sa bisub tey bii moo gën a rëy muy jaayante gi nga jaayante mu jaayante si Amadou bàmba ci melo yoo xam ne sëñ bi di leen tàggat kenn ku nekk cër bu rëy bi ko suñ borom jox ak melawu sell wi nga xam ne am na ko am na ko ñuy wax sëñ mut jow paxa bi mu ñëwee sëñ Tuubaa dana ko ataytu ko yàqut bal wara mutaxayyiba te bi mu ñëwagul ci sëñ bi maliku nuxaat la tudd sëñ Tuubaa ay coma topp ko ay ponk la ko topp ay kàngam ay nit yàlla ay kaang ñu yàgg ci yàlla ñu sës sëñ Tuubaa ñaari poir yi am poir bu ne ña ca gën a rëy raamal nañ sëñ Tuubaa ña ca gën a rëy nañ sëñ Tuubaa Ahmadou Diop Pakha bi mu ñëwagul ci sëñ Tuubaa maliku duxaat nee na réew mi ku fi dégg grand-mère maay sa buur bi mu ñëwee ci sëñ Tuubaa sultaanul arifin la tudd xoolal ni sëñ bët bëddee ay bëtam sëñ Tuubaa may na ko mu gis mulkoog malakoot te awliyaullah yëpp mulku la ñuy yem benn bi sëñ Tuubaa won na ko mulkoog malakoot te gànnaar ba noppi mu ne ko man dem Mbàkke damaa bañ nga di ma liggéeyloo ba noppi bu jàllee nga nangu ko booba dafa nekk ci sugeer sugeer gii ci boori sagata sëñ Tuubaa ne ca gànnaar sëñ bi Ah Diaw Paxa sëñ Ahmadou Diaw Paxa boobu da doon da doon seet bojjulu nee na mu dégg sëñ kau kàddu sëñ ah gi naan ku may woolee Diaw Paxa mu daal di takku fasam laxas nee na sëñ bi damaa taxañal diggante bi tawaytu tariqal xaw mi ci laa ko déggee nee na damaa taxañal ma ne cëpp sëñ bi ne ma tontul ma naar yi may dem may wàññi samay semaine bi fi fu jal laaj xam ngeen li xol ko ko ñuy wax Muhammad ibnul Budu, Muhammad ibnul Budu sëñ Tuubaa ne ko yonente ba nga lay nuyu yonente baa ngi leen nuyu moom lañ denc biirul xayri jaraari la tuddoon sañ bokk sopp biirul xayri li gën a yéem Muhammad ibnul Buddu bi muy génn adduna bi ruug génn daa tasanteeg bi ñuy génn xayma bi ah, a wàcc sëñ Tuubaa xanaa gisoo leen Jibril alayhi salatu wasalaam moom malaaka yi ñoo ànd ñëw di ko teeru si nee li ko war a mooy bëgg gi bëgg bëgg gi ma bëgg rek la Jibril wàcc na dañ ko teeru si ngir jël si ruugi Muhammad ibnul Buddu nga gis gaañoo ñu niñ mel moo tax benn naar wax ne fa la ma laqatu Cheikh نفد يميني من غبار المشايخ فما مسا ديغ واجو باخ لامنا لا بادا جي سنتو با لا يلا باي نين كنن واخني قديم المصطفى قوس الانيم لسان الحال تشهد للقديم بمثل الشيخ لم نسمع حديثا ولا في سالف دهر القديم بان نار بوبو تي غاي دون جيما جومل سنتو با نانا من لي غنا وير موي يالا موما واخني سنتو با امول تي نيو وي امول تي نيو يس ني سنتو با امول تي نيو وي امول تي انسي ناخ اور شيري لا بن مارك ياغ ناكو نيت ني ديغ نانكو باخ باخ بن مارك لا بوم شامدو با مومل مروم mooy lisaanul xaali la wax tashhadu lil qadimi bi misli shay lam nasma xadisa wala fi saalifi dahril qadimi mu ne ko mel ni sëñ Tuba kenn mësu koo gis te kenn mënu koo dégg gaa yooyu jaayante seen digganteeg sëñ Tuba nga gis ku mel ni si Amadou Diop paxa moomu melawi ko suñu borom jagleel ak doxin wi nga xam ne moom la am ci aw jëfiin ak melawu sell wi ko suñu borom dajel sëñ Tuba ne ko def naa la ngay sama jaww may sa asamaan mu ne ahmadu jaw jawwun wa shayquhu sama wal ard taxta al jaw la taxta sama ahmadu jaw mooy jaww ji sëriñam mooy asamaan si ñi nga seen ñi ngi ci roon ndëgg yi ahmadu jaw waaye yëgguñu ci ahmadu bamb mu wax ne nag wa saaka jaarullahi in kunta saila rafiqu lil mamduux fi nuuni wa najmi nee na boo may laaj sëñ Tuubaa kum doon dama naan la mooy ka dëkk ak yàlla tey xaritu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa saaka la si xad jaa wa diinu mayitun fa ahyaahu shaxsan fi l amakini ma shaa mooy ki ñëw fekk diine dee mu dundal ko moom moomale jàngale mela woowu kooku kenn la ci kàngami si Amadou Bamba yi wala nga xool xam ngeen ne Cheikh Mandoumbe Xabbaan Cheikh Mandoumbe nee na moo Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina nee na daaneen xëy suba di root di jubbanti sakket di fanaane sikkar ba fajal xam ngeen ne Cheikh Ibrahima Fall ca woowu yoon la yaat dégg nga waykat ba la wax nee na sikrul ilaahi la sax doo liggéey joxe ko ci lii la jaar ba ñu xëy baddil ko Cheikh Ibra Fall dikrul ilaahi la sax doo liggéey joxe ko ci lii la jaar ba ñu xëy baddil ko Cheikh Ibra Fall na waaye di ko jeex ci téere ba jamono allahu akbar yàlla noppi ne Cheikh Ibra Fall daal di wax ne ëllëg la ñuy xam mbiram buur yàlla moo xarale walaaw yafalu maa yisaw Cheikh Ibra Fall basmala lam nga ca kaw tiim baaga kenn xamu ko baagaa di Cheikh Bamba lam ngay lamp ci Ibra Fall nee na ëllëg la ñuy xam kuy Cheikh Ibrahima Fall engagement Cheikh Ibra Fall nee na yow mal xiyaamatul akbar bu jàmm ñëpp teewee tànk bu nekk juróom-ñaar fukki tànk ci ku seen ndeyam daw ku seen baayam daw koo ne yow mu ne du man ku ne ma yow mën a mën a Fall Cheikh Ibrahima Fall mu nee na mu mën a yow moo tax mu ne ëllëg la ñuy xam mbiram buur yàlla moo xarale wallaahu yafalu maa yashaa'u Cheikh Ibra Fall ma Mandumbe Xabaat moom it noonu la meloon am na bis moog Cheikh Ibrahima saar ngeen jasaaka yaakaar naa maa ngi xasida gi sama dañoo jël seen addiye daal di koy def ci géej gi ngas ko suul wax ne sëñ Touba daal moom nanu tontu sëñ tontu na leen sama ñaari murid bokkul ak nag dem nga mag yi yoon yëpp xëy ànd ak Cheikh Massamba Mbacké ñu dem Thiès fekk fa Cheikh Ibrahima Sarr njaañ na ko tey tey dañoo bëgg mbind mu tooy xip moo xam ne day bàyyi ko ci sëñ Touba mu tontu ñu nga xamne ne mag ñi bi ku ñu wax señ bay di ciun mo bind lettre ba kéro ñu ciul ko ci ak tatu mango bi takku sànni jot bi ko sulé mbindum señ tuba mu toy xipp xipp xipp lañ gis ci la señ ma samba waxe won ne ibrahim al fardaqat abdal ajibati cheikh Ibrahim sar ndianje wane nay xar baax yi kawteef correspondant bi dafa leer ñom dañu dañu activer won dañu activer won motax fu señ bi sànnee dara rek ñew dajé ak ñom ci señ melo yoy nga gis ñooñu seen cëri yalla yoy lañ suñu borom jaglél ak cër yu mag yi ñu am mag ni seigne Touba dem ci geej gi ñu tassaro seigne Mbacke bu Gueye nek keur Serif seigne mandou mbeker ma gay ndaw mam tierno nek guy Ngura Cheikh ibrahim borom darul Mouhty bobo mom la seigne Touba batale yoon wi dénk ko na nga muñ na nga gore na nga am jom touba bi téré ko dekk Touba borom Darou ànd nak njabootu seigne Touba gi en 1895 Leclerc dañoo lak Mbacke bari kere biñ lakkee kër gi ba mu ne durr fekk borom daaru sëf na lenn li ci ay mbaam ak i loo fu mu jëm ñu ne ko du fi yoon wépp nekk responsabilité ci Cheikh Ibrahim fan lañ ko dëkkal guy ngura mooy fële ca boor yi euh, nga nga xam ne ca aéroport bi fi mu nekk foofu mooy guy ngura mu dégg mbay dee ku fa dëkk faatu sëñ Mouhamadou yi daal di génn àdduna boroom daaru nekk fa sëñ Modou Moustapha tawat sëñ Fallou tawat Cheikh Mouhamadou Lamine Baara tawat bisub keroog la borom daaru julli ñaar rakka tuur ay xéewal ba ab dënnam tooy mu ne yàlla bu fekkee ne sama kilifa gu baax gi daa ñëw nara ñëw ma di ko laaxal njaboot gi naa ñàkk bakkanu mu daaw balla mii ma amul lu may moom ndax 95 la sëñ Tuubaa dem 96 sëñ mu daaw balla gën a jamono mu ne naa ñàkk moodu mii wala ma ñàkk sama ndey soxna Faati Isa baa man cerno ma dem waaye na doomi sëñ Tuubaa yi dund man cerno ma dem wala moodu mi wala sama ndey nga sa bakkanu njaboot ngir jox ko Cheikh Amadou Bamba pas-pas boobu mag ñi amoon te borom daaru moomu juróom-ñetti fukki at la dund yu manqué ñeenti weer ñaari yoon la ma sa tiim ba mu amee ndox fay na ko sëñ Mahmoud Begere nee na damaa toog ci borom daaral Mati nee na mu yor jaara bi di ko wëlbati naan sëñ Tuubaa daal liggéey rasulullahi ba mu jox ko àjjana man Cerno ma di ko liggéeyal ba ceebi yaa ngi waaw borom daaru mas naa toog ba yàgg mu ne bari nañoo seeni cër leen ko xaj man la ko sëñ Tuubaa jox dun ko jël si te duma leen ko yët man Cerno nga xam ne melo yooyu ak cër bu rëy bi mu am ak doxinu sell yi nga xam ne moom la dox digganteem ak Cheikh du Bamba radiyallahu taala anhu kooku xoola cëram ni mu rëyee te mbokkum sëñ Tuubaa la jaayante borom daaru sëñ Tuubaa nee na mës ta juuyoog man mës ta tàggoog moom laa fi sixarihi wala fi kibarihi du ci magam du ci ndawam wala nga dem ca kan faaxal afaadila ahlul juudi wal karami ma sàmba mbakke kasirul almi wal xikam fatan fadilun labibun haayun yaqisun nadbun karimun ala taaqati wal xidami wala nga xool tey seex ma Massamba Mbacké mi dim caat nga xam ne ma sàmba sëñ Tuubaa mi ko jàngal yar ko mooy baayam mooy magam mooy ndeyam mooy léppam ma Massamba Mbacké nga xam ne egg na ci dayob tërbiya foo xam ne mu ne su ko séen baa ñu di ko jot xam ngeen ne li gën a yéeme Cheikh Ibrahima Diop al Machari nee na giñ naa ci yàlla bu dul woon sëñ tuubaa kii gën ci jamono ma Massamba mbakki lay doon nga xam ne lawlal xadimu imaamul asi xudwatina la kaana afdalu ahlu asi kullihimo Cheikh Massamba Mbacké moomu Cheikh Amsatu Jaxate nee na bis sëñ Touba woo ko mu ñëw mu ne ko demal wool ma Massamba Mbacké nee na bis sëñ Massamba ñëw mu ne ko ma Massamba rafaatale naa la kun fa yakunu rafaatale naa la kun fa yakunu Cheikh Massamba moomu nga xam ne na bis rek muy maasal Cheikh Ahmadou Bamba xelam ne ci kenn ci waa këram da koo yewi xoola boobu pas-pas ak googu taalibe gu dëgër nga xam ne meloon wi muy dox ak dox yi muy dox dégg sëñ Tuubaa déggin wow nag kenn déggi wu ko sëriñ Tuubaa moom ci melo wow ak jege gi nga xam ne sëñ Tuubaa jagle yu bari bis wax na sëñ Maali Njaay na ko yéeneel ma ci njaareem gépp kuy jox na jox ma sàmba kuy wax na wax ma sàmba sëñ ma sàmba loolu doyut ci moom ba bi sëñ Tuubaa ñibbee Tuubaa Cheikh Modou Moustapha tàmbali jumaa ji tawat dal ko yaram bi diis mu ne ko naa la jox sama dund nga xam ne sëñ Massamba Mbakke ak dundam ma Mahamadou Moustapha la ko jox moo tax bi mu génnee adduna sëñ Modou Moustapha moo ko jullee bi mu taxawee tiim ko dane bu ëllëgee yowmal xiyaamatul akbar bu yàlla teewee rasulullaay teew saa bàyyi sëñ Tuubaa teew maay seereel Cheikh Massamba mii ne murid sadiq la loolu la ma Mahamadou Moustapha wax keroog bi muy jullee Cheikh Massamba Mbakke nee na bu yowmal xiyaamee may seere loola te ñooña xam ngeen ne seen jëf seen diggante seen borom ak seen xam-xam kenn mënu koo takk ci melaw yi leen yàlla jagleel wala nga xool tey bokkam yi nin ko jegee ak nu ngoo nu ngoo jëmale seen kàddu ci moom doxin woowu leen yàlla séddee ci dajale lu nekk ci bëgg ko ci suñ borom ak di ko am ak di ko sàkku xam ngeen ne gaa yu baax yooyu suñ boroom séddi cër ya xam nañu dëgg dëgg dayo ba ak maqaama ma te bari na ñoo xam nañ jox nañ seen bopp sëñ Tuubaa batale woon ko seen ñoñ awliyaullahi yu mag yu rëy cër yu mag yoo xam ne seen diggante seen borom am nañ ko xam ngeen ne lan moo leen joxañ sëñ bi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen doon tegtal si Amadou Bamba mag ñu baax ñooñu xoolal li sëñ Tuubaa daan boole ci aw doxiin seen diggante ak suñu borom musunoo yokkat musunoo dellu gannaaw xoolal sëñ Mouhamadou Lamine Gaye si ak sëñ Mouhamadou Lamine gay jëm mooy ak seen Baara Faati Mbooñ xoola mag ñooñu niñ mel seen diggante ak seen borom sëñ Tuubaa daana wax ne sama ñetti baara yi fu nekk dara du yàq duñ yàq te dara du fa yàqu sëñ Matu Lamin Gay daana wax ne bàmmeel de xawma yow mi may nuyu kuusi bàmmeel du ma tee fayub nuyoo loolu la daan wax kuusi bàmmeel du ma tee fayub nuyoo mas naa wax ne Cheikh Ibra Fall de kenn xamul fa ko sëñ Tuubaa làq waaye nekkul ci caaxaan daana wax ne sama kër sunna laa ko sance ñage ko charia ku ko ñaggarti yaa boole Mouhamadou Lamine ci sa bopp waaye Mouhamadou Lamine boolewu la ci boppam gaa ñu baax ñooñu niñ meloon ci seen diggante seen borom ak jeex ci sëñ tuuba xam nga ne tawféex ju rëy xoolal sëriñ Maxtar Binta Lo radiyallahu taala anhu sëñ Maxtar Binta bi sëñ Touba jógee ci géej gi dana maam Ceerno andi Maxtar Binta Maxtar moom sungufus njël la sungufus njël la sëñ touba ne li gëna yéme bu guddi masa jot bam soxla sëñ makhtar Binta Lo bu déggé ko yëngu ci caisse gi bu né ana koku wol ma makhtar Binta nee na sëñ Maxtaar Binta Lo lay doon nga xamné bu nit yëngo rek faran mom la makhtar Binta Lo la koku di doon nga xamné kon jagle yoy su mag ñi amon ci seen digënté chamadou Bamba ci réew yi leen jaglél tollu way bu mag bi am kenn ku nekk xolé yi kàngam man alquran amug wilaayatu ba noppi daraamal sëñ touba loolu doyon na xalaat bi ci jambi di xalaat rëy gim rëy ak màgg gim màgg ak cër yu rëy yée lañ suñu borom jagleel te am na ci ñoo xam ne lu ci nekk sëñ Tuubaa wax na ko nit nga xam ne nga ngay ñëw mu ne la nangamay am nanga am nangamay am xoola sëñ Abdou Karim Touré ni mu yéeme sëñ Abdou Karim Touré ci mag yi sëñ Tuubaa yu yéeme yi la bokkoon sëñ Tuubaa mas na ne ko ndax xam nga luñ bokk mu ne ko man da jaay naa lépp nag mbokk du fi jariñ dara benn bi sëñ tubaa mas naa wax sëñ ma sàmba na ko ma sàmba Mbakke sa waa ji dee ngi xor-xoral Abdou Karim eh, Abdou Karim Touré ndax ñu bari dañoo gumba waaye mi ngi xor-xoral benn bis mu toog këram gi ci daaru minam ba yàgg mu ne ah sama sang ba nee na yaa ngi xor-xoral de xaw ma maa ngi xor-xoral déeb de waaye a faatu ak lu mu nekk xam naa ko kaddu gi wax génn adduna mooy ndake li aju sëñ Touba lépp matul mam ramm loolu la mujj wax ci adduna moom sëñ Abdou Karim Touré moo daan wax ne yaa man yu xaawilu moo daan wax ne maa fil bariyati man jaayu masiduhu ilal kadhuba lasi yahwil ka abati nee na bu la doon laaj ki daq wax lu dul dëgg ci adduna mooy ki ne sëñ Tuubaa di wa yem nee na nee na ku daq wax lu dul dëgg te nee na musiba yu réy nga lay xaar daal di cay teg nag yeneen baydu yéeme daal di wax na fa qul li cheyqika fal yelus bi cheyqiya saa qabla la saa max sax yirin daara sal jaati nee na kaay man laa biiré la yow miy dendale sëñ Tuubaa kenn waxal sa sëriñ ne jow jébulu balaa yowmal xiyaama jot fa qul li cheyqika fal yelus bi cheyqiya daa qabla la saa max sax yirin daara sal jaati Cheikh Abdou Karim Touré moomu la sëñ Touba doon waxtaanal bis ba yàgg mu ne ko Ibrahima Fall xam nga loo ko taxarawa mu ne ko bu ñu ko xamee jël mu ne ko déet mës a génn ci làmmiñam tàbbi sama nopp mosuma wax déet Cheikh Abdou Karim ture ana sëñ Aliou Touré sëñ yu ture borom tabaarakallah baarakallah sëñ yu ture bi mu jébbaloo ko sëñ Touba dafa jeex takk bi mu jébbaloo ci sëñ Touba am yaram nga xam ne mujj buy ñëw ab piliyaan lañ koy ŋàbbal bu ñëwee day toog rek tàllal tànk yi ci sëñ Touba tàllal sëñ bi ne ko Abdou Karim lii Aliou ko waral mu ne ko mbakke da jël jur gi yeew ko ci mbooy gi te mbooy gi sëq baarakallah joxal ndaw ñi mag ñi doyal nañ sëñ Aliou Touré waxoon loolu sëñ Tuubaa ne ko inni shtaritu laka abwaabal inni shtaritu laka al iman wal islam maa la jëndal iman islam ihsan daan na ko Abdul Karim daal na ko Aliou Touré ajjana du ubbee mukk te jàlloo ñett juróom-ñetti bunti ajjana yàlla ubbil na la ko tëjal la bunti sawara ajjana balaa tëjee da ngaa jàll yow ba noppi yow Aliou Touré amoon nañ ay oto ku bari woon barke la na daa bari woon ay oto am xéewal sëñ bi bu daan ñaari kore yi sëñ Tuubaa mujj julli si benn bi oto Cheikh Issa Diène ko indi benn bi bopp sëñ Aliou Touré moo moo ko indi mooy yeesalaatoon kër sëñ Tuubaa googu ci njëreem te sëñ Tuubaa wax ne ku ko wër sa yaram araamal na sawara foofu la wër këru njëreem gi tàmbalee ndax booba sëñ Tuubaa dana ko nañ ko defaraatal nee na bi ma sëñ bi seet ci kër gi dana ma de nga xéré li ñuy wax xer bu nekk mi nga naan mu fendi doomi diw ak diw bul ma mu chamadou Bamba seigne Aliou Touré momu xol cër bu reuy bi mu am digënté mak suñu borom liko suñu borom jaglél muy taalibeeb seigne Touba mook sëñ Modou Paxa benn way am na ku leen ko mas a sax booba seen bokk yoy ñu dekkal mu nako way yow yaak Paxa seen barké bu bari bi ngeen am doole ju bari di ngeen am lo leen di wër di wan tur ngeen yor seigne Paxa ko tontu ba mu nekk waa ni ngeen amee barke bari mbooloo loo leen bëgg am ko looleen leen santaane mu am nawet bi seen tool yi li muy mel yéen loo di wérd sëñ Madu Jóob paxa na ko mahabatu abdul xadimi wirdi wa huwa la dal arsi xayrul wirdi na ko sama wirdi muy bëgg sëñ Tuubaa danako na ko huwa nazal arsh khairu wird te ban demee fa sëñ ci yàlla sun borom la fa gën moy bëgg sëñ Tuubaa nako mahabbatu abdul qadim takfi fii acharra wa andil xurubi takfi bëgg sëñ Tuubaa day dëw ye problème di ñoo di ay xéewal mahabbatu abdul qadim tuhti barakatan min barakatil maati bo bëggee am ci barké sëñ yàlla bi néna bëggal sëñ Tuubaa day tax ju tibb ci barke ba di la jox néna li moy sunu barke li moy sunu wird li lañ yor waye ñu yoruñu leneen la wird baa ñu di ko nonu noonu nu meloon seen digënde seen borom ak doxinu sel woowu ñuy am am na ci mag ñi ku nuy wax Cheikh Sadie Mbaye sëñ Touba mas naa wax de Cheikh Ibrahima Fall moo mas a wax ku nuy wax sëñ Ibra Naar sëñ Ibra Samba Naar Cuun na ko waaw ndax xam nga Cheikh yi mbey mu ne ko Cheikh yi di taxul ma miin ko mu ne ko xamanteel ak moom mooy séddale reeri àjjana yi ëllëg de Cheikh Sadie Mbaye Cheikh Sadie bi Cheikh Sadie Mbaye bi mu jébbuloo ci sëñ Touba sëñ Touba dana ko Sadie doxal julli doxal ñu julli ji mu ne ko ah bokku ci sëñ Tuubaa julli ba noppi wok mbub ma fëgg tànk bi ci ndeyjoor bi ci penk bi mun a dung dung mun a saajee xam nga lu mu mu ne ko déedéet mu a ko kaxbatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam benn bi sëñ Tuubaa di julli korité ci njaareem Cheikh Saajee jékki-jékki yuuxu ca kaw bi mu yuuxoo rek bi sëñ bi sëlmalee laaj sëñ Malick Ndiaye waaw ana ko doon yëngu sëñ Malick ne ko bu ma ci amee ndigal wax ko de mu ne ko am nga ci mu ne ko saajee mbay ana loolu tax di yëngu mu ne ko damaa gis bi nga kàbbaree muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mooy yónni jibril jox ko yére na ko joxal ma ko ahmadou bamba maa ko rafatale ci bésu kore gi mu ne ko demal cëppi kuy na ko yow bul dañ ci la nga nekk la mbay am euh, la sa lay def ci armée li na ko kun fi suul lu sëñ Tuubaa gaaw gaaw bu muy tudd Sadio yi régler problème am Cheikh Sadio yi Mbaye ngir melawoo mu am ak jagjale googu mu am ci digganteem ak suñu borom ñu ne kooku taalibi Cheikh Amadou Bamba la nga gis gaa yàlla yu suñu borom jagleel ma Samba Jaara Mbay sama woote bi ku xëy mu tabbib noppam tamuy tàngam lu def boppam ku doy xolam ba bal lëkkut ba xam nee na képp koo xam ne dégg na sama woote bi di tàngam lu na baa sa xol bi lëkkut ba xam mboolem ku mu xaddam laa di woo laa di woo booleeki ci woo na ne مخدم لا ديوا كدي بالهادي ما لوا لودي مخدم لا ديوا كدي بالهادي ما لوا بولك جاك ما ديوا nani labbayka mbaa di len yegal ki ma fi gis te ki ma gis kuko fi gis te andul ak mom kuko gis gënu fi mba saful kharam mam Samba jar neena ni ngeen mala ki ma fi gis sanguk jamono la fi gis dal len di and ki ma gis kenn degu mo turam شيخ الشياخ شيخ الشياخ أحمد شيخ الشياخ أحمد كي مو نتكتل أحمد